dafa am ay dossiers yu xamante ni ni ci réew mi yu xamante ni ne man tey jii. il faut ñu jëli ko. yu garaaw. loxoti mboote loxoti bu xamante ni ne mais c'est des milliards et des milliards. yu ma xam nag. waaw mais. mais attention attention. attention. attention on ne se lève pas un jour parce que on a. am na dossier de six mille milliards. Hmm. tu n'as pas tous les éléments. Hmm. nga ne da nga ciy bind. waaw mais attends mais lay wax rek ne li ngay wax ne par exemple tu m'as dit ba sur le pétrole six mille milliards. oui d'accord. je ne parle même pas a ah, moo tax nga toog ko. parce que xamul tax ma wax la ne la mënoo tëb rek mënoo tëb ne damay jël sama biir feuille. bind un meurtre sur commande ba ko di def il a fallu que moi-même je en rapport avec Pape a Diakhaté mu def ak moom des séries d'interviews sur l'histoire de maître Babacar Seye xam les tenants les aboutissants am na ci sax yenn parti yoo xam ne man maa ko gën a xam parce que Pape Ibrahima Diakhaté est un ami personnel loolu tax mën na la mënoo tëb y a un scandale de 4000 milliards nga ne oui c'est un scandale de 4000 milliards écrire un livre wala bind ci mbir ak toog wax ne yaa ArcelorMittal de 4000 milliards ñu ne waaw léegi jox nañ 65 milliards un avocat amoo benn papier bu koy attesté ça pose problème. ça c'est le rapport de l'IGE ça le rapport de l'OFNAC. xam nga yow tu t'es basé sur le rapport de l'OFNAC. c'est ce que je dis j'ai dit j'ai pas dit non tu m'as parlé de. de, non, s'est pas compris. non j'ai compris ce que là où tu vas en venir dafa am benn benn benn benn benn situation boo xamante ni ne sànq bi nga koy wax. tu vas parler de Abdoulatif Coulibaly. non j'ai cité. waaw ouais, un exemple. c'est pas un exemple pour moi. bu bu a, il a pour moi. aujourd'hui parce que waaw ouais, aujourd'hui voilà que je vois la constance dans sa démarche. toi tu es un exemple parce que tu es constant dans ta démarche tu crois à ce que tu fais. mais pas à celui qui ne croit pas à ce qu'il fait. mais là on se parce comprend que, pas parce que, on se comprend pas encore non, attends, non non non attends, je te parle d'écrire un livre ouais, alors, attends, il a écrit il, il a écrit il, il a écrit des livres uh -huh. sur la NOCI oui contre les comptes et mécomptes de la NOCI les comptes et les mécomptes de la NOCI où sont les preuves aujourd'hui une fois au pouvoir qu'est-ce que Latif Coulibaly nous a produit comme preuve par rapport à ce qu'on reprochait à Abdoulaye Wade qu'on nous les montre il n'y en a pas aujourd'hui qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui sans utiliser la CREI montrer que Karim Wade et Ablaye Baldé ont détourné voilà. l'argent de notre pays voilà. Mhm. c'est-à-dire tey jii Latif li mu bind yëpp ci compte et mécompte wax ko ci annonce yi où sont les preuves une fois au pouvoir c'est l'État qui a choisi d'aller vers la CREI c'est ça le fond du problème oui, l'État qui a choisi d'aller vers la CREI qu'on fait cest sa dire c'est-à-dire aujourd'hui c'est-à-dire tey mhm. ñun tuumaal nañ fi Ablaye Wade tuumaal nañ fi Karim Wade tuumaal nañ fi yoo xamante ni ñun mhm. gëmoon nañ leen ci li ñu wax alors que tey mënuñu ñu apporter benn preuve par rapport à ce qu'il disait beneen bi mhm. non c'est la attends ah, dama lay wax dama lay wax dama parce que gis nga parce que Karim Wade on l'a pas on l'a pas poursuivi sur l'ANOCI. Omar Faye moom laa la wax. mais non c'est l'État qui a choisi de poursuivre après nga yeggali yeggali xam nga moom laa la là xam nga l'État a choisi de dépoussiérer la CREI na 25 dignitaires la ciy topp waxul ne je vais poursuivre Karim Wade sur l'ANOCI. waaw peut-être bu ko poursuivre woon seen lan si mënoon a gis dara peut-être laa wax xaw ma. xare la ko toppee pour enrichissement illicite. oui ou non. c'est un choix. am na ñu waxoon président Macky Sall tu n'as même pas besoin de créer dépoussiérer la CREI. am nga beneen yoon boo mën a jaar. parlons de, du rapport de l'IGE sur euh, Petrotim. on a dit que ces conclusions yi ne PLOL euh, sur la base de sa plainte Karim Wade avait demandé qu'on vire 3 milliards dans à, euh, au niveau de la SG Société Générale qui se trouve au boulevard Haussmann mm-hmm. bind nañ ko ci rapport Petrotim boobu génnoon ñu ne les inspecteurs IGE yi defoon rapport boobu bindoon ne euh, ouverture d'une enquête judiciaire et demander au ministère de l'économie et des finances de ramener les 3 milliards pourquoi topp ñu Karim Wade ci 3 milliards yooyu. mais yooyu dugg nañ ci compte Petrosen. non dañ ne 3 milliards doy na du compte Petrosen. Tullow Oil leen exiger mu virer 3 milliards au niveau de la Société Générale en France mi ngi ci rapportu ak euh, IGE bi dama la bëgg a wax ne la dans tous les cas Karim ñëw ñu tëb topp ko ci gestion de l'ANOCI. ñoom ñoo choisir délibérément ne CREI la ñuy toppee Karim avec vingt cinq autres dignitaires mais sur les vingt cinq autres dignitaires ci biir PDS à part Karim Wade kan lañ ci topp. Ah, parce que Karim moo nekk. Abdoulaye Balde non Abdoulaye Balde regarde regarde le paradoxe. regarde le paradoxe. et c'est ça xam nga le paradoxe c'est quoi on dit Abdoulaye Balde. Demba non attends on dit Abdoulaye Balde. Abdoulaye Balde est aussi en suspens. aujourd'hui il est le président de la commission de l'Assemblée nationale qui est chargé du pétrole alors qu'il a un dossier qui n'est pas vidé par la crise c'est-à-dire c'est ça là c'est là c'est là le problème c'est là où on veut dire c'est-à-dire l'objectivité des des poursuites judiciaires c'est-à-dire c'est remet en cause la crédibilité rapports de nos organes de contrôle mhm. il y a un problème de crédibilité qu'il faudra régler Euh, kii Mbow. Euh, euh, attention. Hmm. li nga wax yow laa gën a gëm sax nag Ngom Keïta moom laa gën a gëm tey IGE moom laa gën a gëm tey Cour des comptes parce que on les fait faire porter des œillères pour uniquement leurs propres intérêts parce que amuñu institution yu forte amuñu ay organes yu wóor. lu leen neex la ñuy def ñooñu nu mun ma basé wu si ñoom waxuma na def ñuy defuñu de waxuma loolu je parle de ces de ces organes de contrôle là amuñu crédibilité te ñoom ñoo def lu tax amuñu crédibilité beneen bi je ne souhaite jamais je ne souhaite jamais attends dama lay wax parce que xamu tax mhm. am na lu ñu xam ci passé ale mën naa toog fii ba deux quinze jours di ko déglu parce que xam naa ni kii 31 décembre 2011 invité na Macky Sall contribué na wax na te ba léegi mi ngi continué. mooy constance. constance boobu nag mu ko doon def di wax constance boobu laa ko bëggal moom mu di ko am. n'est-ce pas même au-delà du livre yoo xamante ni moom ses propres investigations mën na ko def am lu weer ñëw taxaw. mais du ma ci ne du ma ci du ma mën ci Nafi Ngom Keïta wala ci rapport rapport Cour des comptes wala Massamba Mademba. Nafi Ngom Keïta fii la taxaw ni je vais sortir le rapport de la Guana sur les huit milliards. Guana bi kan moo ko géré woon c'est Cheikh Amar il n'a elle n'a rien sorti. c'est huit milliards de francs. elle n'a absolument rien sorti c'est-à-dire ñoom ils ont un passé douteux ceux qui ont des passés douteux il faut remettre en cause leur rapport du ma ko nangu loolu bu ñu defoon dara Macky Sall sa loo xamante ni gëm naa ne lii di yoon sama wax mais da xam dafa am loo xamante ni ne ñun léegi ñoo koy jël en charge di ko régler suñu bopp parce que si ñu organe ni ñu yaakaaroon mhm. yaakaar ni ñii dañ ñuy liggéeyal ñoo ñuy dimbali pour ñu jënd situation bi defaluñ ñu ko. xoolal affaire Sudatel xam nga Sudatel ñan la. xam nga ko. ñan la Expresso. xam nga ñaata lañ jëndee woon orange. ñaata. zéro franc symbolique PS Abdoulaye Sadji euh, PS. Tigo xam nga ñaata la woon. cinquante cinquante xam nga expression ñaata la. milliards. c' est avec Abdoulaye Wade. kon nous avons connu ko nekkate téléphonie bii ça peut nous apporter des milliards. l'ARTP a été créé par le fils de Cheikh Tidiane Sy. je faisais partie de ceux qui signaient la pétition man. je fais ab Thierno man maa doon yor pétition yi di wër biir Ndakaaru di dem ba France di dem fu nekk di indi pétition 20 pour cent. Latif Coulibaly était là avec nous en de mener le combat. aujourd'hui ce fils de qui est un jeune ingénieur qui connaît énormément de choses j'ai été trompé aujourd'hui il bénéficie de nos lieux non non non xam nga Rijal yàlla dafa bëgg yàlla dafa bëgg dëgg yàlla dafa bëgg dëgg te dañu bëgg aussi saa ñuy wax ñu xam ne dañuy tegu si dëgg dañu nekk ci liggéey bu xamante ni ne Pape Alé Niang est plus crédible que Nafi Ngom Keïta est plus crédible que que Lofla parce que à tout moment on peut on peut les utiliser à mener des combats politiques et c'est ça que je ne veux pas. très doomu Cheikh Tidiane Sy boobu nga xamante ni ARTP bi moom moo tax mu am tey qui est un bu jàng am xam-xam ku ne soxla ko si réew mi. ci àdduna bi il a la wul dëgg. dëgg la il bénéficie d'un non-lieu du temps où Macky Sall au pouvoir et ce combat a été mené par Racine Coulibaly bind wax ne il y a 20 milliards qui ont détournés xaraas dara amu fi. waaw léegi loolu bu amee nen doo remettre en cause un peu yenn affaire est que man mën naa ñëw rek ñu engouffré moom ci benn ci benn kii noonu sans pour autant que je réfléchisse. loolu tax je me le refuse. politisation euh, euh, des dossiers. bien sûr